Issa euh, match la bu nga xamante ni aussi spécialiste yu bëri jàpp nañ ni revanche la en fait yéen au niveau euh, du douzième Gaïndé xanaa vous allez sonner à la mobilisation pour remplir justement le stade naka ngeen koy waajalee. bon merci beaucoup ah d' abord sa xel euh, du du match revanche parce que contexte yi bokkuñu Sénégal bi ñuy joué Algérie en 2019 dañ joué match de poule mu gagné ñu ñu mu gagné donc boobu. jàpp naa ne Algérie moo ñu mënoon ndax parce que mën na gagné compétition deux fois. Mm-hmm. mais boobu ba léegi je pense que ni fédération am na jéego yu mag a mag yu mu def ci football Sénégal ba mu impacte l'équipe nationale du Sénégal créé ci ay conditions de performance et de participation président léegi mi ngi koy wax fexe ba maîtriser la logistique. Mm-hmm. fexe ba teg équipe dans d'excellentes condition loolu nag moo impacte ci performance équipe bi tey Sénégal mooy équipe bi gën a xarañ bi ëpp doole ci Afrique donc ñu revanche lii match amical la mais qui est capital ñu jëluñu ko monsieur Tafa dañu ñëw jël match dafa nekk ci phase préparatoire bi nga xam ne moo war a yóbbu ci Coupe d'Afrique 2023 Abidjan ñu war ko jouer mois de janvier. Mhm. loolu loolu mooy solo bi dañu permettre ñu mën a évaluer li nga xam ne ay jéego def nañ ko yi nga xam ne ay manquement la ñu war a joyantiwaat def ko SG wax na ko léegi yéen journaliste yi ñu wax naan jot na Sénégal di jongante ak équipe yu mag dañ daan jouer ay matchs amicaux ay ay yenn équipe mais léegi ñëpp ni Sénégal jon dafa war a jouer ay équipe ay Cameroun wala ay équipe yu mag Algérie ne dafa bokk équipe yi gën a mag ci Afrique donc euh, moom mu jël coupe d'Afrique bi avant Sénégal donc tey match bi dafay nekk match bu neex. Mhm. ndax ñaari équipe yi tolloo doole lañ. bon dañ sax fekk ñu beneen bi mooy match euh, ami amical amatul lekk si si haute compétition yëpp dafa am ay impact. Mhm. si ranking mondial bi. si ranking voilà xam nga ñun ñooy deuxième pour le moment je mhm. fi ay at nekk ci poste première place bi kooku suñu poste la ñoo ko moom. Mhm. waaw xarit la post boobu ñoo ko moom dañ ko war a récupérer waat te fii la jëm léegi nag match bi ñu nga jëm ni fédération ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo boobu léegi ñu ngi ciy seen réunion. Aliou Cissé mu ngi téye équipe am war ko nekk fële ci regroupement du xool yan stratégie la ñuy def wala yan tactique la ñu war a taxaw pour mën a gagner Algérie mais ñun waa douzième Gaïndé mhm. boobu ba léegi ñu ngi ci. naka ngeen di waajalee mobilisation non waajaay waaj bi match bi je pense que sax fédération daf ko defal pour daf ko def pour les supporters sénégalais daf ko pour douzième Gaïndé d' abord boobu ba léegi Sénégal gën ñu fi football à part du ñu contre Bénin. mais ñu def keroog match bu am solo bu rëy bu àdduna yëpp di wax contre Brésil tey ñu war ñëw def ko war ko defaat fii si si si nga xam ne mooy Diamniadio mm-hmm. nga xam ne Sénégal équipe bu football la équipe mm-hmm. yi am envie seetaan seen équipe saafante ak ñoom mm-hmm. ba sa leen junjunj ba nga xam ne ñoom wan leen yéen vous êtes maire en Afrique maintenant si terme de mobilisation dina am animation dina am lépp lépp dans le fair play parce que nag ñoo dala suñuy gan.